mbokk yi salaamaaleykum géewu Sénégal ndaw moo ko réalisé top 5 moo ñu wan kanam junior moo ñu wan ginnaaw ñu ngi lay ñoom ñaar Mbewaan production attention waaye sama nday ak safurla dem na jël ko tànk ba plaquage mais top 5 bañ naa yóbbu nañ la top 5 attention takk takk junior takk na ko daan na ko yóbbu nañ top 5 top 5 muy sama nday yóbbu nañ top 5 top 5. paree top 5 yóbbu nañ ko top 1 yaa doon yóbbuwaat top 5 tey top 1 mer na mer na mer na ah, dee eh, bul bokk golo gi nag eh, bu ko Caatu Pikine ak horaire horaire eh, eh, eh, waaye horaire sàccoon na ko Caatu Pikine daw na Caatu Pikine jàpp na ba ngay dóor ma ngay rokos ma ngay rokos e Caatu Pikine nag dafa yeb horaire yow horaire kii da laa yeb kii da laa yeb tekk nag bàyyi ko rek Caatu Pikine dig bi na suuf daa mel ni ku mëq si suuf si tuuti horaire da ngay yenu mbarki <laughs> yàlla ngay yenu baax na horaire da yenu de da ngaa bëgg a humilier mi ngi ne tekk rek di ko xool caatu Pikine ak horaire horaire jàpp na ba mu dëgër benn loxo bee jàpp loxo ndeyjoor bee jàpp goos bi jàppagul horaire ñam na caat dóor na caat day mel ni ku tëdd ci kawam horaire yenul kii kii yeb na la de dóor na la ay dóor yu métti si nga toog rek bàyyi ko caatu Pikine ak horaire horaire da kay yoot Caatu Pikine ak Horaire ña ngay rokos sante rokos contre ko rokos <laughs> billaay Horaire li mu nar du jaam wax naa leen ko aar bi sifle ne dem na ardo ah caat moo dem ardo waxoon naa leen Horaire li mu nar du jaam a ah, ngay bërti bërti bërti nii ñam nga de pat raxasu na si suuf Horaire mi ngi jàkkaarloo moom Horaire mbapat kat la waaye loxo yi baaxul bu la rek da lay gaañ ñu ngi leew toowaat ñoom ñaar caatu Pikine horaire leew too baa ngi bar a ah, horaire waat benn goos fam ko la bëgg a dóoraat baax na gauche gauche horaire bi du jur jàmm ah jëlati na tànk ba jeex na jeex na jeex na jeex na jeex na jeex na jeex na jeex na moo ko mën waxoon naa leen narul jàmm da ngay yoot jàpp na la nee na niip tëral la ci suuf yóbbu na ardo tëral na la ci suuf mais caat di courage bërekat nga dajel Jib Diop Jib Diop doomu Looro Big Diop jàpp na ko Big joob doomu Looro ñoom ñaar dañu nduroo tolloo nañu ah doomu Looro doomu Looro ngemb bu ñuul Big Diop ngemb bu weex doomu Looro moo koy bëgg a yëkkati morso yu xonk yi ñu ngi bàyyi Eh, ay morso yu xonq yaa ngi bàyyi kat moo ko moomoon xawma ko ku rocc nag tànk yi <laughs> ndaw caméraman caméraman bi xaw ma ku rocc xoolal nga ni nit la woon billaay lu ko lu ko ko def doo benn soxna la am grand lu la def nii ndaw lu la def nii ndaw lu la def nii waaye waaw. benn nga jeexal nii. ndaw ndax boo amee deuxième mandat di nga ko ànd ak. attention ay la la la. wuy sama ndey yooyu asa. wuy sama ndey yooyu asafur ko dóor ko ci suuf quelle rotation. mbot nga am yéen. daga mbot mbotu rotation. dóor ci suuf. wuy sama ndey ndey ndey ndey safurla ewaay eh ndaw ndaw ndaw ku la def nii benn mandat ewaay eh big big Diop def na ko benn mandat laay <laughs> laay la laa le combat spécial arbitre sifflé na reenu guy moo ngeem moo ngeem bu xonk takkul dara joña moo ñu wan kanam joña moo féetee nday joor moo gën a moom tamit ngeem bu xonk la reenu guy ngemb lu xonk à gauche Jonia wan ginnaaw ñu ngi lewtoo ñoom ñaar tooloon nañu neexoon nañu ku ne pied gauche reenu guy wala reenu Dakar ana reenu Dakar ana reenu mandarine avertissement reenu guy ak Jonia arbitre sifflé na doonante ndax mu saf combat spécial ngeen yi tamit ah ndaanaan rek ay bëre combat spécial Leewtoo Jogna à droite Reenu Guy à gauche ku nekk ngemb lu xonk nga indi waaw merci beaucoup Reenu Guy Jogna jàmbal ci bi naan daj faj tooy day fay tooy a ah, Reenu Guy door na droite gauche nee na fii kenn du ko fi jàmbalee di ko suukaree Reenu Guy door na droite gauche droite Jonia mi ngi dox di jireeku ndànk-ndànk Reer Guy sànni na waat benn goos ah woo la ci xeex de jo ay ca soo ay waay soo dem na loolu la bëggoon daan la daan la daan la daan ci xeex daan la ay waay Reer Guy woo ko ci xeex daan ko eh eh eh Perrier woo de Perrier bi jaarul yoon Perrier woo de jaarul yoon de sama yaay dafa liggéey sama kër baay dafa liggéey sama kër baay door combat bi yàlla ne sama alal yëpp laa ci def ngir am ndax ndax dafa per dama war a nekk champion man su ma mag mbër la woon dool du dara lamb la rek lamb la alxuraan kan par maa war nekk mbër man waaw loolu dara lamb la ay gone lañ dafa dañuy juum waaw parce que xam naa ni door sud suy door day tànk bi day ñëw te dama ko jàng moo da waaye ñu ay champion la dañoo war a nekk mbër mbokk yi tey la dimanche 30 octobre 2022 Grand Mbagnick Calme moo ñu wan kanam ñu gën ka xam ci wàllu mbapat nekk école de lutte Boy Niang bu Pikine mi ngi dajee ak kan caatu waalo bu écurie waalo am 7 heures attention way xàcc na attention caatu waalo jël na ay waay bal na ko da ngay ëñ attention caatu waalo taxawul benn yoon day sob day sob rotation day sob rotation ay bët bët bët bët bët bët gal-gal kalmu dóor nee na teg kalmu dóor nee na teg ñaari loxo yëpp jàpp na moo gën a jot loxo caatu waalo da rabe tuuti di ko wër bëgg koo bëtt kalmu dóor ne teg rek di ko déglu ànd ak sérénité ak calme Caatu Waalo mi ngi résister calme Ndour mi ngi door way yaay dana ko gaañ ay waay ay waay ay yaa ngay dal ci kanam ga mbaa benn faqul mbaa fenn faqul mbaa faqul ba ndaw ndaw wan ma kanamu Caatu Waalo mbaa fenn faqul wala bënnul wala teppeeku waaw am na am na am na lu xew de wala combat bee jeex am na lu xew de dem na Ardo way yeegam yoo Ardo waxoon naa la ko ndaw ndaw waxoon naa ko am na fu lu fëq walla fu bënn wala fu teppeeku si ñoom ñaar ñëpp ay e waay am na fu teppeeku waay roona ngay daw roona ngay daw si bi Arona Sall mooy coach si jaatu dafay dem wax ak moom attention door mu wàcc attention jaatu waalo attention Caatu Waalo Calme Ndour nga ak moom caatuwalo Waalo du ko bëgg a ndax de 7 heures 14 minutes mais est-ce que Caatu Waalo li mu bëgg dana ko réussir def ko bëgg a juumloo woo ko ci xeex juumloo ko loolu la bëgg moo tax Calme Ndour nee na teg ànd ak ànd ak ak sérénité concentration da kay yoot andi ko ba ci biir géew bi caatu waalo ndaanaan la dagg nañ leew too bi ñoom ñaar ña ngay xoolante xoola nim ko tiimee rek comme potu lampe ak benn gaz <laughs> comme ma nga teg benn potu lampe rek teg benn gaz ci wetam attention waaye gaz bi du ñeexu ñebe sànni ko benn gauche jàpp na ko ay waaye tar na ko ay waaye ay waaye takk na ko daan na ko jeex na jeex na jeex na yoot na ko ba daan ko ba doog ci kawam loolu la ci bëggoon jeex na jeex na yoot na ko ba daan ko ba doog ci kawam loolu la ci bëggoon yoot ko ne ko niip daan ko doog ci kawam jeex na waaw waaw lii la la waroon bëre mu Ndour qui se relance